Lac de Guiers Eumeu Sène oh combat bu neex combat bu am solo si carrière ñaari mbër yëpp. mooy seen troisième waaw bu am solo seen carrière maanaam tey jii nii. benn bi Maxime nii la ñu beneen bi Eumeu Sène daan na ko ah Eumeu Lac de Guiers na ko lay nekk ak benn Maxime Eumeu Sène nee ko dama lay def 2-0. waaw Lac de nag bu bëggee roi des arènes yomb bi na teg bakkanam. combat bi waaw bu daanee bi dina am mille chance pour bëri jéeg roi moom mosut am chance dina jàkkaarloo ak roi des arènes directement. Eumeu Sène nag ci li mu jugee lamb ji du lamb ji muy perte te Eumeu Sène la mu war a bëre dëgg dëgg dëgg bëree ko parce que yenn lamb yi fi mu koy fekk moo tax li mu bëgg a bëree bëree ko gis boo seetloo moom Bombardier kon daa ñëw rek bëre parce que bëre boobu daa ci moom. wat bi sax boo gisee nga xam ne kii mooy li nga nga xam ne kii tey daa ñëw pour bëre ndam moo ko arrange day am ndam. su ko def sax da nga xam. non ma day dugg sax sànni benn nga xam ne kii tey du ñàkk du kon lamba boobu. yaa ngi dégg kon làmb boobu làmb bu am solo la si ñoom ñaan yëpp waaye rek solo bi mu gën a am mu ngi si mu ngi si Lac de mu ngi si Eumeu Sène parce que Eumeu Sène dafa jógee ci lu garaaw fi Lac de Guiers jógee gën a neex fii Eumeu Sène jógee kon làmb ju tar la ku jum daanu.